waay di def rek ba yeboo mu xam ko ndax ku dul fen a ko wax muy Seyid Cheikh Ahmed Tijani moo wax ni yëf yi ci seen loxo lay mujj waaw l'essentiel mooy ñu bañ ko yàkkamti te fexe ba li dal ñeneen bañ ñu dal mooy yëf yi bett li xew yépp mooy dañu jël yëf yi te mu betti leen te ñi fi jóge liñ fi bàyyi waxuñu ko waaw moo tax coono bi bare ñun xam nañ te lu bare waaye comme kenn boolewuñu ñu nit ñu nekk magum lëndëm rekk waaw ku ñu dajul ñu daj suñu bopp waaw waaw bu ko defee comme ni ko Oustaz Cheikh waxe sant ministre de l'intérieur ndax ni mu defee reen ci gàmmu gi la tax ñu sant ko mooy ka fi nekkoon daaw waaw te mooy Antoine Félix façon bi mu man pour xeex ñu yëpp daaw def na ko mooy comme booba maa ngi gis bi muy jóg ci fauteuil am soixante douze lañ ca teg rekk ñu éjecté fauteuil ba waaw fekk boobu mu di ma yónnee ndaw di ma menacé ni wax leen ko ni dégg naa baat bi mu wax ministre de l'inférieur ni ma nag dina ma tontu ci baat bi waaye jotul am jot pour tontu ma waaw daa fekk ko ci kaw ci suuf la ko fekk waaw keneen ku mu mën a doon it boo ñu bëggee tontu bay boo nga pare ndax yàgg sa fute yi di ngeen ànd waaw ko defee kon nag dafa am loo xam ne fayda rek moo koy def ñu boole sunuy xalaat rek boole sunu yitte boole sunuy taxawaay li Aziz wax nag projet yi mu wax yëpp amul fu ñu ci jaarul dund nag benn frère ci biir oto projet bu ñu mës am bu ñu jëlee góor gi ci guddi gàmmu gi di ko indi champ de course ci ko beneen frère di wax ni ko na ma cuisiner pour xam li ñuy xalaat pour dayre bi bu ko defee ma wax ko projet yooyu le ndeke man xawuma ni woon leneen lañ ci jublu ñu ngi ciy waxtaan ak moom ndax il est tellement franc avec moi mais moi aussi parce que fii rakk amu fii mag amu fi nawleeg nawle rek moo fi am waaw bu ko defee kon yu ñuy xalaat bare na mais fokk nga nekk régime bu favorable ak yow waaye ñu nga ca jëm incha allah di ñaan rekk yàlla dolli ñu sutura yàlla li ñu tawfiq yàlla musaluñu musal képp ku ñu am bu may wax ku ñu am nag jubluwuma ci murit jubluwuma ci tiijaan ku rekk ci biir nga bokk eh, yal na yàlla dimbale ñi fi ñëw ñépp ba ni ñu fi ñëwee ci jàmm yàlla may leen ñu delluwaat ci jàmm te ku fi jógee itam ñaan ku fi jógee yaa xam loo indaale moo xam feebar la moo xam aajo la moo xam yitte bu la ñor la ñu ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla fajal la ko te doo ca am benn coono ndax yomb na ko ci gannaaw benn mag daf ma yóbbanti ni ma sa mbokk yee dëkk ca waa kër maam Matar Penda nee bu ngeen di def seen gàmmu jamono bu nekk di ngeen sant ñëpp ba des ñoom te wax na dëgg ñu ngi ci tant bi démb ca akay bayit ñu nga fa woon am na ci ñuy soppaliku comme nit nga dend ak ñoom te doo ko xam am na ci ñu nga xam ni duñu wàcc ci suuf ci kaw la ñuy nekk bu la yàlla mayoon nga am loo xoolee tuuti rek di nga leen gis ci kaw jaww waaw ku ci nekk ak façon ba ko yàlla maye noonu lay participer ci yëf yi bu ko defee kon de ah yal na yàlla di leen kàttanal ndax it seeni taxawaay ak seeni intervention lu ama am solo la ci ñun ma sa dégg góor gi mu wax ni ku ñu nar rëkk ñu rëkk la waaw kon nag ñoom it yal na yàlla fay leen te yàlla di leen xiir ci mbaax rek di leen yàlla di leen yokkal kàttan ñépp nag seen taxawaay kenn desul comité d'organisation beeg ñi ñu seqal dayre bi yëpp góor ak jigéen mu mel ni itam bu ñu tuddee MJ sunu bopp la ñu tudd ndax capitaine baatu capitaine bi ci boppam mag yéen a ci yem ba léegi xaw li indi turu capitaine lan la